partie du ça fait partie de du hip hop je pense que clash c'est très normalement un petit hip hop mais nañ ko d'une manière on va dire, industrialisé d'une manière ñëpp a petit de la part euh, day entre Tupac et Biggie dañu defoon ay ay pour jaay ko quoi d'une manière bu ñu defoon ay CD jaay ko clash pour ñëpp dañ ko jënd ku am quoi donc c'est très normal mais nañ ko industrialisé man d'accord avec ay clash quoi clash c'est un xaalis quoi bon c'est assez compliqué de donner son avis par rapport à ça parce que déjà bon au Sénégal nous bëri ay farfarloo moi ils waxee ni bon public waa ji da koy jëlee ne na mais bon comme on dit souvent dans naan clash suñu peuple la entre guillemets mais bon c'est vrai clash du peuple la mais tamit pour moi une question de conviction et de et de nit moi peut-être bon par exemple c'est ma conviction mën na ma bañ a jox ma mën a clash ma bañ a bañ a bëgg a clash. ba xam dañuy nekk ci guerre disrespect bi gars wax man je suis parfaitement d'accord tay su lay clash mën na la clasher lenen lu saga nday ndey buñ motalikoo saga yi pour di clash nit nañuy motalikoo suñu plume pour di pour affaire bi di leen vexer carrément quoi mais je pense que saga tamit mënuñu ko génnee ak ci culture urbaine ku ne mbedd ku ne mbedd xamné mbedd fi la am saga si la am xasse si la am wax wax lenen ak lenen lenen lu déborder si la am il faut que tamit réalité yi ak concept yi ñukoy koy bàyyiwaale xel mais ñun par rapport ak suñu culture so saga saagawee scandale la. boo duggee ci clash faut que tu assumes faut que tu assumes tes propos mëno wax nit ben affaire après nga génn na no waxé wu ma ni nii nii laa affaire da ngay assumer c'est vrai ne que rap bi dafa am clash amna si mais bo jëlé yoon bobu nga dugg ci clash assume va jusqu'au bout sa biir son booy wax ak nit tudal turam bul bul bul bul jaay nante nan da ngay depp ay affaire waxal turam directement index lui nga wax ne ki yo lu ngay def ni neexuma wax lola lola metti est-ce que comprends mais assumer ko après nak c'est pas malin parce que les les clashs ça dure pas éternellement est-ce que comprends nga ce sont clash boo génnee benn son clash xam dagal nday affaire yoy non do dem sa sa kër diko ko ak sen wa kër donc c'est c'est bête à la fin manque

comme gars dañu nan États-Unis non États-Unis amna fa rab yi gars dañuy saagante États-Unis ben rappeur bu saagee benen rappeur c'est parce que buñu tassé ci si bi da ngay saagawaat gars yi nekkat ci ngan problème est-ce que comprends que faut gars yi dañ gën a dañuy génn ay gon di ko tiirante sans problème parce que dañuy assumer lolu la lay wax tout tout est question de ce choix ce choix là léegi boo defee ce choix nag voilà faut assumer après nag ku nekk ak ce choix point Wow, le clash comme ni le gars tout le temps rek ça fait partie du hip hop mais que nous clash ak ou le clash avec saga. cest Le clash à la base c'est tu fais du rap je fais du rap yow tu sors des tu sors des normes du hip hop li ngay def ce n'est plus du hip hop Tu nga ci li nga xam ne moom moo le hip hop man ma venu, ma clash la pour te ramener à la raison mais quand on revient maintenant pour dire xas nit ki wala saga, ça devient autre chose ça devient du disrespect L'anglais dit « anglais disrespect parce que clash dafa am beef am ak disrespect Je suis ba di saga » ou wala di la euh, duggal ci ay yaay wala ay xam nga ñi naan ay dafa saga ça devient autre chose que du clash simple comme classique comme nous le ko quoi donc voilà comme bon bon ni ko gars apprécier bon noonu la apprécié. Ça apprécier ça fait leur affaire maintenant man ce que je constate moi, la plupart au Sénégal gars yi bu ñuy clash yenn yi dañuy xaar ba am événement c'est-à-dire quand il y a des événements yoo xam ne ñu ngi ñëw ci la ñuy commencé génne ay son clash saagante def le buzz autour de dem créer seen affaire yi nga bon quand on parle de Dip Dip am na benn événement bu muy waajal voilà il fait parler de lui Ngaaka am na événement bu mu jugee muy euh, grand théâtre ambi voilà bon ñi ngi naan fiasco na mom nee voilà fiasco di def mu fiasco mo gën def mu fomm et cetera et cetera Omzo depuis son clash bu ñëk ba mom ak Dip bo mu ngi don préparer son comeback show à chaque fois gars yi bu lay gis ne bu ñu nekkee di préparer événement rek ci la créer ben business yoyu non xam nga créer le buzz autour de sen sen, sen personne sen ay business après dem organiser événement ñu réussir ci mu génn bon est-ce que c'est typiquement hip hop wala est-ce que stratégie de communication la entre ñoom euh, euh, toujours est-il que je donne ma langue au chat mais waaw wala clash business mais clash moom ça fait partie du hip hop. bu parce que dafa nek lo xamanteni dafa bok ci hip hop fi lañ ko fekk depuis mënoo ni da ngay def rap ni do def clash lolou mënul nek parce que dinañ la sanni pic nga fayu wala nga am envie xol gis ni ki ni amna envie limi def neexuma fii lu ma ko am naa lu metti dama koy dénoncer parce que avant tout tamit rap musique la bo xamanteni ni pour dénoncer la wala nga génné li nga xamanteni mo ngi si yow quoi donc clash mënul génn ci hip-hop loolu waxatuñ ko jàll nañ fofu bu la valeur de nepsi se mesure la profondeur de ses textes comprends nga ba ni ki nga xamanteni tay dafa am dafa am intention pour di yé doom adamé di génn dina axe kooku war am beneen comportement bu mu doxee bu dul comme genre façon yi may gis parce que dèjà dama si déglu ay son yoo xamante benn yoon laa koy déglu une seule fois dootuma ko dégluwaat parce que rien du tout lu dul manque respect bi daw si biir quoi bu dul doom bu dul dara ñun ay doomu aadama lañ ñu ay aimé lañ quoi te en tant que rappeur quoi man pour man. boo demee bay rab war nga mën a wax lu yee doomu aadama yi mais tey bu ñu demee ba rab bi toll bi d'une certaine façon yoo xamante ni gars yi dañuy déborder d'une telle sorte que bay insulte jàmm ay affaires yoo xamante ni yu grave yu bizarre yoo xamante ni xam nga amul woon ci 98 99 te pourtant bu fekkee dañuy wax classe rek bu fekkee dañuy wax ay classe tey si di biir rek war na mën a naes comprendre ba war na mën a tegu si axe te teewul du am débordement moom tamit ci histoire Iba dafa yàgg am diggante Biggi Tupac diggante keneen ak keneen lu yàgg am la ci histoire Iba parce que Iba bon dafa nekk loo xamante ne affaire self made man la ku nekk da ngay prôné maanaam gëm sa bopp donc tey ku ci nekk yow bëgg nga ne man maa nekk au top mais tamit mu am respect parce que bon culturellement ñu dañoo bokk ci famille boo xamante ne tey fi su ma suñu kër sama yaay toog su ma ci kanamam xalaatuma ko sax ba di ko def donc may def œuvre œuvre nag moo nekk loo xamante ni du mës a dee parce que même su ma deewee man en tant que auteur sama œuvre mi mi mi ngi fi sama œuvre mi ngi fi donc damay bàyyi ma war di bàyyi woy boo xamante ni woy bu nice la woy bu euh, rafet la te ibab bañ wax nañ naw la ji dafi bokk xam-xam nag su amul teggin moom kooku nekkul maanaam xam-xam bi nga xamante ni dañ war a prôné donc respect bi dafa war a am ci classe yi nañ classe d'accord parce que ci ibab la bokk classe ci ibab la bokk kenn mënu koo dindi mais aussi ñu sóoraale que ne am nay xale yu ñuy déglu am nay yaay yu ñuy déglu am nay papa yu ñuy déglu quoi voilà merci beaucoup non non, parce que pour man clash de musique daf euh, hip hop il faut que nit ñi c'est que Sénégal nous avons des paramètres des affaires xam nga détails Nous avons du nous daf ci ñi koy comme ego trip nous ci comme affaire ak affaire bu rap d'accord pourquoi bu kenn clashé ñu non la musique ko pas mu seulement man li déplorer ñu saagante parce que tay aduna dafa gudd tank aduna bi deme dafa jara baye xel. waaw bon man je pense que il y a quelque temps j'ai déglu na ñaari rappeurs yu doon saagante pour bon bon ben rappeur bi la déglu mu saga, ma déggee ben rappeur bi réplique donc j'ai été vraiment surpris parce que aussi identité bi nga wax légui day ñëwaat parce que sénégalais am nañ loo suñu culture la. I'm not xamni mom lañ dañ def dañ def à la limite parce que tout simplement notre notre tradition notre culture ne nous le permet pas donc buñ démé ba dégg nit di son man ma jël son bobu tok sama wetu papa wala sama wetu yaay play ko mu dégg saga bobu lolou day am lu ñaaw lu nga xam ne da koy bàyyi ci rap sénégalais donc ñu jëlaat encore une fois rap bi approprier ko mais moderniser ko de telle sorte que mu mëna joindre suñu culture ak suñu ay tradition c'est quelque chose que je déplore lo xamni wax deug yalla rafetlu ma ko on doit faire la musique parce que dañ ko bëgg mais waruñoo def musique parce que dama bëgg parce qu'on Madia wala dama bëgg de la diw donc je pense que ce c'est pas l'importance comme on le dit ou bien comme tu as l'habitude de le dire life is not a competition life is a mission donc mission bobu moy lan man li la gëm sama àdduna li moy sama sama sama philosophie li lay défendre na ko défendre j'ai pas besoin d'inciter les gens même si euh, ego trip c'est ça c'est comme ça qu'on l'appelle si rab le bokk wax ci sa bop. parfois aussi nga wax ci yeneen mais on peut le faire dans la plus belle des manières je pense